day and ak jamono sa su ne mhm. eh, te ñukay koy diine ñu ngi ni si nga xamni suñu ñi nga xamni wess non gan ndax ku ñew ñewat doto gan dëgg la soxna si dog ñin di ko eh, <laughs> dalal ak eh, suñu sëriñ bi nga xamni mu ngi nekk sama euh di nga leen dalal inshallah allah ñu ngi ñaan yalla téléspectateurs yi di leen ñaanal jamm du sax su ñaan mhm. du ñaan yalla ubbi suñu xol leeral suñu xel jubal suñu làmmiñ ba lepp luñ fi waxtaan mu nekk si njëriñ su askan bi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu incha allah rabi. Mhm. jërëjëf Chérif Cissé ñu ngi lay jaajëfal yaa Seyda nag ndax moom tey moom dafa jël vers Malick yaa <laughs> macha allah. <laughs> macha allah incha maa ngi leen di ziar bu wér a wér jërëjëf mhm. Chérif may euh, nuyu yaa Seyda maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay soxna Aida aouzu billahi samii alimi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana allah wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalina sayiduna mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokk julli di ñuy seetaan fii ci seen télévision Malikia TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay di nuyu suñu sëriñ bu baax ba ca Tiwaawan di sëriñ Babacar Sy Mansour ak mboolem njabootu maam Cheikh Sidil Hadj Malick rek ñi ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu ñi safoo seen émission émission leeru Maodo bi ci jamonoy tey Aïda di la delloo nuyoo bi di nuyu Chérif Cissé di nuyu suñuy invité macha allah ñu ngi lay fay bu baax yaa Seyda may nuyu aussi Soxna Xadi. Mhm. Soxna Xadi waxoon naa la di nga dellu si <laughs> nga ko de. <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw fay naa la nuyoo fay mhm. ñi ma bokkal plateau nuyoo ñoom tamit di ziarat Chérif bu baax a baax. bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi. Seydina Muhammad salaatu mhm. maa ngi santaat bu baax a baax ñi ma may fekkee ak tal ba ñu mën a dellusiwaat fii si Malikia TV. Mhm. di nuyu euh, téléspectateur Malikia TV yëpp ak euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy. Euh, techniciens yi di mhm. nuyu tamit borom kër gi di ko ziar di ko mhm. màggal di ko ñaanal saa su nekk rek lépp li nga xam ne bëgg na ko ci kër gi yàlla defal ko ko ak kilifa diine kilifa aada di sàkk su ñoom ñaan te di leen ñaanal saa su nekk di nuyu ñu nekk ci hôpitaux yi di ñu seetaan ak ñu nekk ci prison yi di jaajëfal ñëpp di ñaan rek Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm allahumma amin waaye soxna laalo sata man naa ca gën jëkkër waxambaane ca gën ku soqul walul balaa laax dugub ruq di la fay nuyoo bu baax a baax baax Chérif Seyda ak soxna suñu jàkkaar lool di soxna su baax di leen ziar baax di nuyu waa Malikia yi ñëpp di leen wax ne Malikia du jaar Fass Mbao ku koy séntu ci embouteillage bi ko fa fekk APS lay jaar ndax leeru Maodo la. loolu dëgg la ñu mm-hmm. seen TV ndax rafet gi ñu rafet jikko ak baax gi ñu baax. moo waral tey ma jóge fa ñëw invi ñëw ci invité Malikia TV di ziar Bougane Gueye Dany ak waa kër gi ñëpp rek. Mm-hmm. ndax. Euh, ay waay waay waay waay waay wërsëgu jàmbur ko cay wajaasi war kaa gërëm mhm. waaye gaskatu dànkew ma ngay wajaasi yenug lemam yoo baa nga di la ziar baax a baax ci kanam di la dalal encore une fois sëñ hmm. Ousmane fi si Malikia TV Leeru Maodo téléspectateurs yi mi ngi noonu euh, seen thème mu démb bi nag euh, ñu doon waxtaane li nga xamante ni mooy néegu sëy continuité lay doon incha allah ma bàyyi comme Chérif Cissé rek mu développé comme ni mu ko daan defee saa su ne après ma tas kàddu gi waaw jërëjëf soxna Aïda mhm. hmm, danoo dugg si néeg boo xam ne néeg bu lëndëm la mhm. euh, Eh, la fay xew yëpp eh, borom néeg yee ko borom néeg yee ko war a xam. Mhm. wante nag eh, jamono dox na ba nga xam ne ña nekk si biti la ñuy xam si biir néeg bi sax ña sa biir néeg bi duñ ko xam. waaw loolu. jamono foofu lañ toll. ndax néeg dañuy wax néegu sëy dafa xat. Mhm. démb jot nañu waxtaan tuuti. Mhm. ba ñu ubbi bunt boobu. du wax ni néegu sëy la la lay yàq su biir. wala la kay defar mhm. eh, fëggoon na su ban koy ba nuy labat mhm. eh, mën na am dañ ko tànqamlu eh, mën na am itam dañ ko dégg dëgg mais la gën a bari itam nañuy takke waxoon nañ ko fi fii soxlawal ñu fii dellusiwaat mhm. yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox na ay ponk yi nga xam ne naka la ñuy tànnee jigéen mag ñi itam waxoon nañ itam nan koy takke xam nga wax na nañu ni mag ñi daf daan jàngal nan la dañ la daan jàngal nooy wute dañ lay jàngal nooy nooy amee. Mhm. dañ lay jàngal itam nooy laaje. nooy saraxoo sax. Mhm. Euh, dañ la koy jàngal. Mhm. parce que léeg nga wut mbir dara la nga wut ma nga fa. mais na nga ko laaje moo la koy xañ. Euh, dañ la daan jàngal itam boo amee noo koy teye léeg nga am dara sonn si ba am ko wante du yàgg sa loxo. lu olof di wax am ndaa toj ndaa. Euh, taxut a bare ndaa. néegu sëy nag boo gisee ñu dugg si tey ñu ngi fas ne su ñaareelu pàcc buñ su duggee. nga xam ne luy gën a bare su jafe-jafe néegu sëy bokk na su fiiraange mhm. fiiraange fi nit kuy fiir mhm. mën na nekk su wàllu ku jigéen ki euh, ku ku wàllu ku góor mhm. luy am itam mooy infidélité bari na itam lu ñu koy gis su néegu sëy euh, góor jigéen ñi nga xam ni sàmmuñu seen bopp wala góor ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi topp si seen bakkan mhm. yemuñu si seen soxna yi nga xam ni lew na leen mhm. parce que boo déggee ñuy wax sëy mhm. mooy góor ak jigéen ñu ànd euh, mu nekk euh, li nga xam ne yàlla daf ko digal xam ne bu ñu séqee bu ñu séqee day nekk li nga xam ne euh, def nañ ko su ndigal yàlla araamu leen man nag ñu bari nag dañ koy fooye ndax diine lislaam boo nekkee su buumu sëy boo génnee su buum sëy googu diine lislaam daggul sa loxo daggul sa tànk mais dafa lay rey donc day mel ne nag tey koo xam ni nekk nga góor wala jigéen nekk nga su buum sëy googu boo génnoon su buum sëy googu def naka su dul noonu diine lislaam xëy na bu deen fanweeru yoon nga ko def diine lislaam rey na la fanweer yoon li nga xam ne àq diine lislaam ndax parce que ak gu rëy la mais nag dafa mel ne loolu dañ ko def fookaay euh, waxuma sax day yàq mais day xajamal diggante bi ndax boo déggee mooy xajamal boo jëlee cere def si suuf ba pare bëgg mëq cere bëgg lekk cere yéey cere bi day métti si yow ndax mhm. mënoo tàqale pepp cere yi ak pepp suuf yi mhm. ba nga xam ni fexe sëy daal lu lu bañ mu xajam daal la sa yàlla euh, digle mhm. ak fam la yemale ak frontière yama def bu si génn fam la yemale Euh, nga yem foofu. Mhm. xam naa bu ñu waxtaanee ba si biir. su mhm. wa lan mooy indi fiiraange. du soobee ak tolluwaay bi ak ak euh, infidélité ban jeexital lay am. si biir mm, sëy bi daan si gën a leeral incha allah rabi jërëjëf euh, Chérif ñoo ko déggandoo gis nga tey li ñuy waxtaanee. Mhm. maanaam infidélité bi nga xamante ne am na ko ci biir néegu sëy yi. tey loolu ak fiiraange bi nga xamante ni daal tar na. problème yu bëri yi ngay gis des fois muy am ci couple yi loolu aussi daf koy euh, daf koy indi waaw. wallaay euh, macha allahu taala mhm. soxna Aida euh, néegu sëy moom. Mhm. comme li ñu dooree démb rek. comme yàlla ñu ko sant. Mhm. mu doon loo xamante ne jaamu yàlla la. dañ cee war a def lu ñu mën suñu kem kàttan. te yàlla dong tax. ndax lépp loo dugg. te yàlla tax mhm. yaakaar naa ne loolu di nga ci sédd sa borom te di nga yàgg mhm. waaye lépp loo xamante ne bi nga ciy dugg intérêt moo la ci dugal euh, yàlla taxul loolu yaakaar naa doo doo ci yàgg mhm. comme li ma waxoon fii démb rek xale yi dañ leen a war a jàppale bu baax a baax a baax ci seeni doxalin ak seen taxawaay ak seeni jikko ndax lu nekk rek jikko moo koy def macha allahu taala xam nga ne euh, euh, fitna bu nekk rek bu fekkente ne yow dangay ngay sëy yaa ngi koy jéem a yëkkati. Mhm. foo toll loolu lépp ay jikko rek moo koo def. Mhm. ndax même fiiraange gii ngay fiir ak di ñaaw njort ak euh, di jéem a euh, def loo xamante ne naka su dul noonu loolu lépp jikko. moom moo koy def ndax alquran nee na nee na wattaqu fitnatan laa tusibanna zalamu minkum xaasa mu ne na ngeen di maytondiku fitna ndax fitna ay loraange dong la leen di jural fitna du indi lu dul ay jafe-jafe du indi lu dul loo xamante ne lu lay sonal lay doon ndax bu fekkente ne suñu njaboot gi Euh, surtout bu ñuy sëy ci jamono bi lii tas dafa bari soxna Ayda mhm. xale yi bu ñuy dugg di génn torop billaay te bis bu ne ñu ne sëy du caaxaan mhm. sëy yàlla moo ko wàcce ci kaw suuf mhm. def ko ci diggante góor ak jigéen ngir ñu mën koo doxal ba nga xamante ne su ëllëgee da laaj naka nga ko doon defe comme ku ci nekk li ngay def ñun jullit ñi laa wax de. ku ci nekk li ngay def. Mhm. comme bu ëllëgee yàlla danaan la tegal fii ma vérifier ko xool ko kon ku nekk li ngay dugg war nga koo bàyyi xel. Mhm. war nga cee seet sa digganteeg sa borom. ndax fiiraangekat kat soxna Ayda. Mhm. du lenn du dul ko rek moo koy def. bëgg fitna. ñaaw njort euh, ba pare bari na looy bañ. bari na looy xeet bari na ay problème yooyu indi xam nga lan moo la ko teg mhm. kañaan rek moo ci lalu mhm. ndax fiiraange ma ak kañaan dong la ndax bu dee lu sa morom am nga ne tey du ci dal mhm. wala tànk amuma ko duma duma duma toog waaw li muy ut mën nga koo ut ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man lam ma bi amri muslimina fa laysa minna képp koo xamante ne li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko sa moroomu jullit nee na kooku yow bokkoo ci man mhm. ku nekk li nga bëgg mën nga ko bëgg ku nekk li nga bëgg mën nga ko bëggal sa moroom mhm. macha allah taala waaye nag nga teg ko ci yoon ndax yow man su ma amee dara tey mhm. ni la soxna ay man de am naa lii xoolal kaa ñu dem ànd man kat yéene naa la ci loolu mooy jikkoy jullit bu rafet loolu wàññiwul dara mhm. wala ayda de wax dëgg yàlla def na lii baax na loolu gis naa ko man bëgg naa ko cee roy bu ma sañoon nii mu ko defee mhm. wala nii mu ko amee man dinaa jéem a góorgóorlu ba am ko mhm. loolu wàññiwul dara mais jël benn fiiraange boo xamante ne doxala ko ci sa digganteeg sa nawle iñaan lal ko du ci dal du ko fi amee pour lan mu koy yor man yoruma ko pour lan lii moom rek la man nag kooku moom jikko bu ñaaw rek la soxla wallaay dëgg la yaa Seyda soxna Xadi mhm. euh, infidélité ak firange nga mhm. xamante ni daal euh, lëj nañu couple yi tey moom ci loolu la ñuy euh, focus rek wax ci mhm. yow lan nga ci gis waaw man dama ne firange manque de confiance la voilà parce que diggante ñaar yu waaye dencante yi ku ci nekk yaa jox sa morom confiance bu nga xamante ni tey ji ne woon sa soxna mi ngi ci nekk ak góor sax boo ñëwee da naan dara amul mm-hmm. parce que ça dépend ci xam bi nga xam sa jabar ak moom ci boppam confiance bi mu lay jox mm-hmm. voilà parce que nit moom kenn du ne kaay ma mm-hmm. la te euh, mariage yu intérêt yi dafa bëri trop moom rek moo fi nekk sax ngir bëggeel instant jël jox la ko original bi maa ngi koy denc kañ nga dencal original bi mhm. kañ ngay joxe original bi mhm. parce que dëkk bi day gën di metti day gën di jaxasoo mhm. intérêt bi day gën di bëri yow léegi kan dencal original kenn hmm? est-ce que du yow yaa mujj téye sa original bopp na perte partout hmm? léegi da gis ni sëy aussi Euh, euh, waajur yi dañ si wane ginnaaw de trop moom laa doon wax démb mhm. de trop parce que xale yi të nañ tëggoo xamante ñoom ñoo utal seen bopp ay waajur mhm. ñooy takkal seen bopp ñooy defal seen bopp mariage defal seen yëpp mhm. loolu day day day gaaw a tas rek nag gaaw a tas rek parce que ku amul kilifa jënd di sa kilifa maa la ko wax ah, ci kilifa mais yow yaay sa kilifa bopp fan nga jëm kenn xamul voilà mi ngi noonu euh, loolu de dëgg la olof Njaay dafa ne bu bu ki bu la jënd yëlifee Mm-hmm. bu la malaaka yélifee nga gàtt fan mm-hmm. waaye ku amul kilifa jinne di sa kilifa wala malaaka te bu la malaaka yélifee rek gàtt fan laa ci gis sëñ Ousmane euh, gis nga liñ fi waxtaanee muy euh, euh, fiiraange bi nga xamante ne am na ko ci waay dencante yi soxna Aida mm. n'est-ce la moom la kay yaay astu tamit yaay mbeen mm. yaay Aïssatou mm-hmm. yaa moom tur yëpp macha allah yaay Ayda yaay Mbène yaay Aïssatou <laughs> kon foo jaar xam ñaata naata nen ak ñaata nen la naat nen ak ñaata la nen bi boof ak ñaata lañ baxal ak ñaata la gedd <laughs> maanaam sëy pour ko uh-huh. foo jaar xam ñaata naata nen mm-hmm. ak ñaata nen la naat nen mm-hmm. ak ñaata lañ boof ak ñaata lañ omelette ak ñaata la bi gedd mm-hmm. ak ñaata lañ baxal dëgg la kon sëy dégg la néegu sëy faaleel goro fonkal njëkkee kon ñu fal ak sëy biiri maas bul fay bul fuuy mbaa ngay fo lu ko mooy boo faatoo ñu fàtte la mm. nijaay du morom ab sangala saxal ci ndigalam tey moytu ay téereem mm. billaay lii boo ko defee loo jur mu barkeel mm. tànk bu gudd ak làmmiñ wu dang boo bëree dërëm itam doo am ngërëm kumba tëxlu de moo la war ndege bëgg nga mucc ci màggatum yor yor sërif suur kilo yëkk liibar 30 ceeb bi daa gom lu jaay nga lëb te xëyoo gontoo dëkk xul toog marsa neexul jigéen bu firam réew du jur lu dul wuyu bu maandootu muñ pot wàllu nañu muñ ndax muñ muñ laa ci xam ku muñ muñ te cere ju neex jigéen ju baax a koy mooñ te réex-réex la naa ku réqatee te yaa moom ku ajabañ ku séenu koo far naa lum mhm. ñaara yàq sëyi ëppal ak fiir ëppal ak fiir mhm. fiir ay nelaw la waaye dof yaa ci biddanti fiir ay nelaw la waaye dof yaa ci biddanti ku ne ñëpp a fiir mhm. waaye fiir gu ëpp lu ëpp baaxul toujours nay tege nay digg doomu di xuus booy layoo da ngay tefesu dëgg la mm-hmm. fiir ba mu ëpp baaxul mm-hmm. ndaw si bi ñu ko takkalee wujj ne ko néeg bi nga nekk néegu aawa bi la ndax ca aada soxna yi dañuy ràng mm-hmm. néeg bi nga nekk waroo faa dugg da war a génn jox ko ñaareel bi yow yaay aawa bi da war a dem ci premier néeg bi te moom néeg bi mu nekk moo am salle de néeg bi ñu ko bëgg a yóbbu amul salle bi imaam yi yëpp ñëwee borom kër gi ñëpp toog mu ne xalaatuma ko ba mu xamaatee ba mu xamee ne dafa war a takkaat salle de daa war a tabax ñaari wujju. waaw yéen. ku ne ak sa wujju kii moo fiir. ëppal booba jaxasoo na. loolu métti booba jaxasoo na kon bu ëpp baaxul waaye ëppal baaxul. ndaw si bi mu fii dem ba Gosaas ñu ne ko ndax ndax jëndoo sëri ca mu ne bi dugg ci 5000 bi bis baa ngi sama pochette ma wàcc a ma dara kii moo ëppal. <laughs> kii baaxul waaye ëppal baaxul sa wujju ki ne la sa wujju du sa wujju xam nga wujju dafa am kujje am kujje baaxul wujje baax kujje jiim la ak keef mooy jàkk jàkk muy kujje jàkk dañu dañ kaa dañ kaa wëlbati ndax jàkk jiim gi tàmbali ma keef gi mujj waaye kujje keef gi moo njëkk uh-huh. jiim gi teg ci soog cee tege uh-huh. kujje nag mooy jàkk jàkk nga naan jàkk nit ki uh-huh. boo ne jàkk nit ki nag xam nga ne ki topp sa ginnaaw mooy xool sa tànk yu dëng ki sa ginnaaw mooy xool sa ndong li gudd nag guddul kon koo ne jàkk la gis ayib ci moom kujje kujje baaxul mais wujje moo baax wujj nag ak waaw mm-hmm. wujje waaw la ak jim mm-hmm. waaw six la jim trois la muy neuf mm-hmm. moo tax maam Seydou Fall waxoon bamba ñaare fi nekk sang gi ak njaam gi bamba jëlal sang gi ma jël njaam gi ëllëg fu njaam gi taxaw sang gi taxaw fa fu wane suñ tubaane sa Ibrahima Fall wujje sa wujj du sa wujj kuy sa wujj mooy sa yaayu borom kër ëllëg war ngaa jur ki nga xam ne ëllëg bu taxawee sa doom bu taxawee mu taxaw sa doom bu demee ba sol maraaki su baayam mu jot ko war naa dox doxinu baayam moo tax doomam ak baay doomam ak baay fi nga koy xamee moo di doomu mango bi moom nga njëkk a gis moom nga ji mu màgg sax garab gi génn macha allah xob yi boo yéeyoon mu saf kaan yi nga xam ne kii doom bi juru ko may boo yéeyee dafa saf la mu war a saf saf na màngo kon doomam ak bàyyi kon fexeel bu ëllëg nga jur fi koo xam ne nii bu màggee dana dox doxinu baayam mais jur fi koo xam ne bu màggee buñ nag diway ba ñu ne acam diw nangam ak nangam kon kooku mm. defoo fi lu baax te cëy la mu aj am cëy la mu cëy la mu daj mm. boo fi boofal ci ngay séel boo màggee ki ngay am day mel ni gileem waaye boo fi si gilee li ngay seel bu màggee nag li ngay am day mel ni mbott moo tax baatay sëy baat bi nga war a defar ba mu baax nga teg ko sa nopp borom kër ak baat bi sa borom kër war a defar ba mu baax mu teg ko ci nopp soxna si hmm. baax saa bu baat boobu yàqoo rek nañ mayanta baat ndax xale bu fi judd rek kër gi dafay tas kon sëy ngi noonu nañ ko waajal bu baax a baax te xam ne fiir ay caaxaan la hmm. toujours ki mënul rek hmm. moom mooy fiir waaye nag fiir bëri nag ñu góor ñi ñoo ko ñoo ko ñoo ko indi ndax sànq nee naa la laalo sata man na ci gën jëkkër waxambaane ci gën mhm. da ngay takk soxna dem ba màgget nga takk xale bu ndaw te wujje ba say ree di neex mhm. indi ko mu isool ay mineem yu baax ay jiiram yu baax ay tubéem ngeen àndi doxantu mhm. te kee màgget na problème mu ngi bëgg a am tëdd ba fajar di doxantu ci biir kër gi ak sa yére yoo xam du yoon génne ay nuisette di daal di defar seen papa nangam ak nangam bu a defee ne problème day am kon toujours booy takkaat nag na nga takk koo ko yaa ko tas kon mbir ba mën a gérer kër gi mhm. kon kër xel a koy gérer ak pexe bañ a bañ a ëppal bañ a nekk ku ko bañ a dégg mhm. sinon boo ko defee sa kër bu tasee yaa ko tas <laughs> góor ñu bëri ñoo tas seen kër yi wallaay dëgg la de ñu eh, eh. bëri ñoo tas seen sëy parce que du ñu yemale moo tax du ñu yemale parce que problème bu am rek am na lu ko indi Chérif mm, dégg nga li mu euh, jot a développé dëgg mm-hmm. la nay Aïda mm-hmm. xam nga jamono mm-hmm. dafa am fu mu toll dañoo nekk su mujjub jamono te ñu bari xamuñu ko eh, am na tam buñ fi doon waxtaanam mujjub jamono benn bés damaa génn Euh, Mamadou Mbu Pagnama ni ma mujjub jamono na fi mujj tey. dafa bu ko mujjub jamono bu ngay waxtaan na fi mujj tey. <laughs> pour wax ni euh, mujjub jamono la féete woon kaw day féete suuf la féete suuf féete kaw. Mhm. Mhm. dafa am ñaar yi nga xam ne mooy yërmande ak kóolute. Mhm. mama Khady wax na ko sànq. Mm, euh, fiir day nekk ku ñàkk wóol boppam. mais waay dencante. Euh, mag ñi dañ daan wax ni boo bëggee noppal nit ki euh, da ngeen du def euh, jëflante dindi tuuma maanaam booy def ak sa jabar mhm. walla ngay def ak sa jëkkër mhm. ngay ngay def defin koo xam ni defin dund la parce que yow mën nga am par exemple sa jëkkër toog sa jabar ñi woo ko mu beru mhm. du wax maa la raw du yoon du yoon parce que loolu du def leen dund parce que ku ni maa la raw rek wax na namm la la. ku muy nammanteel. Mm-hmm. yow muy sa jëkkër ah ku muy nammanteel ba koy raw. Mm-hmm. parce que yow sa jëkkër il faut que jigéen xam ni jëkkër moo lay wuutu sa pap sa mm-hmm. yaay. sa mag bu góor sa mag bu jigéen sa mag sa rakk bu jigéen sa rakk bu mag say tànt ak say bàjjan. mais nag aussi. jëkkër il faut que ñoom itam ñu matte wuutu loolu yëpp su ku jigéen parce que ku jigéen da nga doon nekk sa kër nekk ak sa ay sœur du fo du reer du dàqante du njoosante nga dékk-jékk rek ñu ji mel nag rek ku ku fekkoon benn kii parce que jigéen situation moo métti mhm. dañuy faral di wax ni xar bu nekk su daral bi situation bu métti la nekk xamul tax mhm. day am ku ñëw waxtaan jubóog moom tekki buum bi yóbbu xamul fu ñu koy ndax dañ koy tabaske xamul ndax dañ koy tudde xamul ndax dañ koy nganale màkk xamul sax fu ñu koy yóbbu situation jigéen moo métti yow mi nga xam ne góor nag yaay indi ku mel noonu détresse boobu muy ñëwee sa kër mm-hmm. yow yaa ko war a wuutu effectivement féete ko fépp féete ko fépp su lu mu def mm-hmm. mais góor ñi matewuñ ko mm-hmm. fiir nag lu muy wax ni euh, wóolu nit ak yërëm nit dafa nekk ñaar yoo ñaar yi nga xam ne ñëpp ko bëgg te moom moo moo yore canu mbaaru sëy wante yow mu ko bëgg yaa koy liggéey mm-hmm. ba nu wóolu la ba na ba ba ba bi nga xam ni itam wóolu nan la euh, ba pare yërëm nan la mm-hmm. da ngay nag euh, lu ko euh, sëñ Ousmane waxee Pape Ousmane fiiru def moo bon oh. ndax Seydi Hadji wax na ko sëñ Babacar si moo wax nee na Seydi Hadji Malick dafa ni mm-hmm. lu ëpp su lu yàqu foog lu nekkul am surtout lu ëpp lu su yàqu su jamono. Mhm. Mhm. foog lu nekkul am. waxtaan nañ fi ñaaw njort. Mhm. ñaaw njort keroog imaam euh, ñëw na fii mun ma pourtant Cissé li nga wax dëgg la. am na sama benn taal bi boo xam dafa ma woo ni ma sama jëkkër dañ ko woo 23h rek. su guddi ay gelam la rek na ma takk sama bagage dem. léegi nag. <laughs> nee euh, xam nga waxtaan nañ ko keroog. lu bon su jigéen fiir. ba ba tàqalikook sa sago ndax su diine lislaam dàq na lépp luy tàqalikook nit ak sagom mm-hmm. mm-hmm. ndax boo tàqalikook sa sago dinga def naka su dul noonu mm-hmm. moo tax demu jigéen kenn bañul ko dem wante booy dem na ko jar dama ni demu kasara am na keroog weex lan mooy kasara mooy kasara mooy nga def loo xam ne amul lu la njëriñ da nga koy def ba pare amul la njëriñ te boo moytul dan la doyadil da lay doyadil dana la tuutal mm-hmm. euh, da boo moytul sax dan la indi lor amul moo doxoon keroog ba nu waxtaan man ko jigéen ñi nan def moytu mm-hmm. ñetti dem kasara yi dem te jaru ko mm-hmm. dem danga war a dem jar day fekk mu jar bi nga xam ne boo waxee lu tax nga dem ñëpp taf seen gémmi te diina lislaam dafa dàq dem fay diina lislaam dafa antuwul mën nga sa jëkkër fase la wala nga ñaan baat mhm. ñu may la baat mais dañ la wax da nga jàpp idda sa biir sa biir kër mhm. diine l'islam ba léegi mu ngi bugg defar parce que fay kër wax nañ ko sa affaire di bët abandon de domicile la dëgg la bu fekkee da am jëkkër ju xarañ wala am mbokki xarañ bu wutee huissier constaté la mhm. boo leen demee di divorcé yow rek yaa gàddu la kooku mooy premier dem kasara bi ñaareel dem kasara bi nga dem te xamoo fi nga jëm léeg-léeg nga fay wàcc sa kër sa ñu fii mm-hmm. amul place nga toog foofu demaat faleen nga ñëw yow nga amoon sa chambre ak mm-hmm. coucher am sa mm-hmm. split am sa matelas orthopédique nga dem ñu lay tëddloo sa kanape wala du la lalal ay mergaat kooku mooy ñaareel dem kasara xam nga des fois jigéen ñi dañuy <laughs> di la gaaruwaale di la gaaruwaale c'est que dafa am de dañuy cof rek xool ba xam yow fan nga toll ci ñoom loolu da ciy am nag loolu nga dem nag ba pare ñëg bëgg dellu si bëgg ñëw ñu dellu si la loolu rek la na ñew ci testé bobu lutax mu graw ñettel mhm. dem kasara bi moy dem ba paré fa nga joggé gën témèr yoon fa nga jëm yow amon nga split am na matelas orthopédique am machine à laver am sa ñent télécommande am sa wifi nga dem fo xam euh, ventilateur am fu upp ëppukaay am. da nga teud su basak mhm. mom sa bop du rang douche togon sa kër du muñ ba am lenen Eh, mais nag jigéen ñu bëri amuñu conseil xam nga lu tax euh, xarit wéttal mooy koo xam ni xarit la mhm. xarit dañ koy tànn mhm. mag ñi nee na ñaar ñoo jara tànn xarit mhm. ku lay xelal su àddina wala ku lay delloo si yàlla suñu borom nee na keneen jar amul ñetteel dëgg la de mais koo xam ne yaa ko gën demin am naa ku ma mas a gis xarit bi du ko conseillé dox da ngay wax sa jëkkër mu wutal la appartement ñun xarit bi woo ko jëkkër ji fekk ni yow yow muy wax nii kii ma jënd appartement. est-ce que yow sa wàll bopp yaa ni sa ñett sëy yi nga def yëpp sa jëkkër néeg bala sa bàyyi joxoon sa kër bàyyi fa lan ñëw sëy si. man yow amoo ku la wutal néeg ngay digal kii ku la wutal appartement. jigéen ñi nag nanu bàyyi xel su yooyu. Mm-hmm. conseil da ngay wut ku lay wax akulaay taalaa muñal. Mm-hmm. wante xale nga mat nga ko léegi yooyu ay wax yu yàqu la de. Mm-hmm. lu tax neex fiir am. keroog wax na ko. léegi jamono ji moo toll fi nga xam ne xale yi dañoo ñame ñamu mag te mag ñi seexlootu ñam xale hmm. wax ju doy waar ak noonu moo koy moo fi ne xam nga lu ko waral hmm. wallaay xale lu góor yi noom ay noom ablaay ñi nga xam ñoo yore cadre surtout bu nu gisee jigéen ñu ngi laaj ndax cas social la doy na waar non c'est vrai boo am lay liggéey mu ngi lay laaj ndax cas social nga wallaay léegi nag yàlla jigéen moo ko njëkk laajal dafal ko hmm. facture proforma si biir alxuraan mu ko yow muy góor yaa koy jox mu lekk vraiment yaa koy so wodd yaa koy dëkkal hmm. mais kuy ñëw nag du laaj yow ndax ka fooy liggéeyee hmm. looy fayoo ko kooku mu ngi la teg bëtu bu bëggul kooku ñëw laa dimbali fas yéene faj ca gàcce dëgg la loolu sens inverse léegi te léegi boo amee benn doom ah. ñun la blessé de guerre boo amee ñaar ñett ñu ni kii

kii bi la nu mu tudd si des fois da ngay gis sa yaay ni muy nekk ci si biir kër gi mm-hmm. co coroyukaay bala mën nañ ko wax liñ naan kewal du tëb doom ji bët loolu tax fa lañ jëm après xam nga léegi moo tax man la le monde en l'envers léegi dëkk en l'envers kenn mm. kii et kii mm. ah, bañ nan ko ban lay yóbbu di la euh, di la yab da nga daa wax sa ndey lii la fi woon yab la nga dégg ko mais dafa mel ne léegi xale yi nopp bu bon bi lan lay jox mm. ñoom dañuy dem ak seen xel moo tax man la léegi kilifa moo amatul ci biir kër néegu sëy yi waaw waaw xam nga euh, soxna Aida mm-hmm. loolu lépp yarin la rek euh, ndax alquran dafa wax ni li taskunu ilayha mm-hmm. wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma gis nga sëy ñaar rek moo ko tungoom muy cofeel ak yërmande ndax bu fekkente ne yow bi ngay doog a dugg si ci ndaw si dalay leer ni sopp nga ko sopp boo xamante ne moom tam sopp na la sopp boo xamante ne bëggante ngeen benn peeru bëggante boo xamante ne ndax ki nga bëgg danga koy yërëm ki nga sopp da koy yërëm lu mu def di nga ko baal mhm. lu mu wax dinga nga ko baal mhm. doo gis ay défaut mhm. doo xool daraam léegi nag loolu nga xamante ne li ñu naan sëy la ko tas yeewoo na ca njëlbeen ba ca kenn fayu ko billaay macha allahu taala mhm. gis nga loolu su fekkente ne am na ca commencement ba mhm. ngeen di doxal di doxal ba seytaane ñëw mhm. wala ngeen di doxal ba dugal ci lu ci bokkul wala ngeen di doxal ba soppi ko am ci biir ah. walla ngeen di doxal ba nga xamante ne li lii lii li li li sëñ bi wax léegi rek ni jabar dañ koy nef am na loo xamante ne nag nit a koy teg boppam. ndax léeg-léeg góor ñi ñooy teg seen bopp nag leen di dal. ndax boo takkee jigéen. dem nga ba nga xamante ne mënatul. na mu rafete woon taar ba wàññeeku na ndax yàlla mayewul dara dafay able rek. taar day jeex. Mhm. alal day jeex. kattan day jeex macha mhm. allahu taala. Mhm. bu fekkente ne yow loolu yow jigéen gi dund nga ko ak moom rafetoon na. Euh, macha allahu ay ay ay ay ay ay weenam na. macha allah taala nekk na taay fiin. Mhm. Euh, bu bu nee tëll ñu ne xool jabaru ngeen <laughs> ah oui. bu nee ñu ne xool leen jabaru ngeen jël <laughs> mu dem a dem ba nga xamante ne ween nee na bàcc. <laughs> yëpp lax na. wallaay dellu dara amatul nga daal di dem takk xale bu ndaw a ndaw a ndaw. maa ko wax ko teg ci wetam comme ni ko euh, sëñ bi waxee mi ngi sol jiin mi ngi sol su fes mi ngi rafet ndax xale moom macha allah bu nekkee ndaw euh, yaramam day day day belli <laughs> bu ko defee mu di ko romb mm-hmm. li gën a doy waar rek nga di ko naqaral nag ci biir kër gi nag. parce que gis nga mm-hmm. yu mel noonu sax même boo deful naqaral sax day defee ni lu mu def rek euh, moom moo tax. lu ngeen def rek moo ma. bu ngeen euh, waxtaanee sax bu ngeen toogandee couple sax mu ne maa tax ñuy def lii de gis nga leen de. gis nga ku ne nag mu woo ko nag bu ko léeg-léeg sax mu woo ay way juram daal di ne ah gis nga. Mm-hmm. gis nga ni may def mi ngi toog ak ndaw si mm-hmm. loolu dafa am ñoo xam dañu <laughs> dafa am ñoo xam nag dañoo fiir dañu am ñoo xam dañoo fiir même pas bu dul fiir ci couple pour uh-huh. sax uh-huh. mënuñu supporte nit ku am lu baax mm. naturel la loolu jikko la mm-hmm. Mm-hmm. mënuñoo supporter koo xamante ne euh, gis nañ ko ak lu baax mm-hmm. wala mu am avancement mm. wala mu rafet wala mu mu war a yéeg nekk euh, première war a dem nag euh, quarantième escalier. wala mu yëg ascenseur. doy am na ñoo xam ne moom ko supporter. ah boobu moom day métti moom jalousie rek la. jalousie naturelle la. Mhm. loolu nag jikko moo koy def. Mhm. yàlla nañ yàlla musal ci jikko ju ñaaw. nañu roy ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu ko defee nga daal di am foofu problème. Mhm. ndeysaan yow yaa ngi sëy ak sa soxna. dem na ba mënatul mënoon na mënatul nga daal di euh, def yi ñàkk sa dul noona. moo tax kenn du Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi kenn du moom. dëgg la dëgg la képp ku fi bàyyi li mu fi teg roy leneen ci problème ngay dëkk wallaay dëgg la yaa wallaay ci problème ngay dëkk kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na ba ñi nga xamante ne mhm. mooy soxnaam bi njëkk ci moom muy Xadija mhm. demoon na ba Xadija bi mu génnee àdduna ay xaritam ak ay mbokkam ak ñu mu amoon bu ñu nee tëll ñëw nuyu ko ndeysaan day jug taxaw daal di leen nuyu daal di leen sargal mhm. daal di ni ah ñii dama leen a bëgg mhm. ndax ñii seen àndandoo ba nga xamante ne moom laa doon euh, séqal àdduna muy sama soxna mhm. defal na ma lu nekk jaar naa man fu nekk te dama koo fonk nit dafay am kóllëre am euh, kóllëre c'est très important jullit dafay am kóllëre waaye sëy ak jigéen mu nga abandonné mhm. sëy ak mënatul mhm. nga takk xale bu ndox teg ci xarit yi kenn par kenn jigéen euh, mënatul wala ngay kalangaatu ci ay ay xarit wallaay dëgg la loolu dafa ñaaw il faut ñu defaraat jikko yi wallaay wallaay xoolaat nekkin defaraat toogaay yi roy ci sayduna mhm. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so koo koy référence déggoo man la demb lépp exemple bu nekk sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na ko fi am na ku nga xamante ni moom bu da bu takkee euh, jabar da daan takk jabar mhm. indi ci kër gi bu takkee jabar am ak euh, doom rek tegle la do côté te bu takkee jabar sant jabar ji lay wuyu ah d'accord waaw mhm. ah, kay comme tey boo bu ma takkee ba pare. Mhm. nga ne diw mun la ah sàll noonu la yóbbu kooku la noonu la ko yàlla bindee boobu mm, noonu moom day takk ba pare jël la teg la dañ ko jeex na bu amee rek désir lay nekk ci ñoom ñu mel ne musu musuñu dem kii dégg naa ko ci say wax parce que wax nga benn wax bu am solo nee nga manque de respect weesootul mhm. nga toog sa borom kër toog nga toog sa borom kër di envoyé jigéen message loolu manque de respect mhm. benn gënu koo ñaaw jikko ju ñaaw rek wala nga dugg ci douche bi di wuy téléphone des am na jigéen yi nga xam dañ koy xam ba pare bàyyi la ci biir dëgg mhm. seen tànk mais ku bari ay ni man te douche ba laa lay fekk <laughs> lijjanti kaa dafa am ni ko mën ak ni ko mëndu mooy ni ñu ko sant ci degré de fii mi ngi noonu daal boo ci dëgg boo nekkee ci dëgg doo nëbb dara mm-hmm. nee nañ mm-hmm. kuy nëbbatu dëgg dëgg dëgg am na lu mu lëndëm ndax yonent bi daan génnew jàngale fépp wane léppam waaye kuy nëbbatu dëgg di wuy ay téléphone ci douche ci fu ne nga di fa dugg mais lu ko jar yow du matal nga li nga doon ci sa ci sa aawo mm-hmm. boo takkee ñaareel mais ñemeel ni man damay takk jabar maa la ko wax jarul ngay daw dëgg lan ngay daw matalal rek li nekk sa kër te diñu gépp koy daw daal da ngaa li nga njëkk maa la wax li soxna Xadi dégg nga foofu mais looloo fi ama ah. loolu rek am ci dëkk bi ñàkk matal wax ma la ñàkk matal gi sax mais fiiraange gi nga xam ne ñu ko fenn euh, manque de confiance la rek. Mhm. manque de confiance euh, te jigéen ñi léegi dañu dañu jël dara. Euh, dañuy baali jël dara. dafa am lu ñu jël léegi. Mhm. dañuy baali ñoom léegi dañuy dañuy dañuy créer ay histoire yoo xam <laughs> ne bàyyi reetaan yi dañuy créer ay histoire yoo xam ne suñu bëggee liberté seen biir sëy pour mën a génn dem weekend wala ñu génn dem dañuy créer seen jëkkër histoire. problème waaw tendance. xam nga dafa am ñoo xam dañu daan nax seen jëkkër. nek ak mom ben gën ko djégé parce que dafa am luñu bëgg. Mhm. Mm. légui nak c'est tout à fait le contraire. légui da ngay tàppaas sa jëkkër euh, euh, histoire. Mhm. pour que mëna am liberté parce que bu lay tong ci kër gi. Mhm. ngeen xuloo yeen ñaar du la falé mais boy gën do tàggoo. da ngay dem ba heure bu la neex nga ñëw. fi waaw xalé jigéen bu ñu bëggee dem weekend fi ni wala ñu bëgg a baali mbala ñu bëgg am fu dem. dañuy créer histoire. dëgg la ndax tongo bobu ñuy tongo. mo leen di may liberté légui sëy gaaw yi ngeen yaakaar lan moko ko waral. wallaay pour après liberté aussi. Mhm. parce que amna ci ñoo bëri tay ñoo xamni tank tant ñu duñu am liberté. Sen papa du nangu ñu luyee néeg sen papa du nangu ñu luyee appartement donc yow yaay créer sa ben sëy bo xamni après da ngay am liberté bo xamni da ngay genn dem dem sa yoon si biir sëy bi wallaay ndeysaan sëy bi dafa waroon dafa waroon tënk mais da lay yewé mhm. mais merci beaucoup fiñ tol ni ku bëgg liberté da ngay dem sëy yi ah lol mom mais mais sa papa ak sa yaay lay bañal ci kër gi euh, liñ lay bañal mhm. yow bo demé sa kër du ko nangu de mais fa ngay gën a amee liberté parce que sa kër gu xëy di liggéey mm-hmm. xamoo lu xew sa yaay dafa xam nga bi ngay nekkee ak moom am na yoo xam ne sañoo ko def sañoo ko wax mais boo demee am jëkkër mm-hmm. non léegi ku bëgg liberté nga dem uti jëkkër mm-hmm. léegi xaaratoon na de dañ naan jëkkër da lay tënk tënkatu la de liberté ngay am par force nga koy am mais looloo fi am. wallaay moom looloo fi nekk. am jëkkër am far bi ngeen doon wax léegi. Mhm. Euh, du du kii dañ naan jamono moo changé. Mhm. tendance la léegi tendance fi ñu toll nii am jëkkër te amoo far bokkoo kaw kaw nga seer nga. loolu daan te bokkoo ci naan tey waaw beddi lan lay def beddi. bokkoo non bokkoo la falex lan lay def. laa dañ naan yoo xamoo li nga bëgg. wala dundoo. mais loola fi nekk. des fois yow da ngay fonde tax ndax yaa ngi si àdduna des fois mën nga toog sa kër deux semaines ku ñëw fréquenté la benn yoon fréquenté la ñaari yoon xam ni yéen ñaar yemu leen ko dootoo ko gisati. dootoo ko gisati te dañu nekk jamono ju nga xamante ne jamono yam la ñu nekk. Ah, yam ndax boo yamul yow boo yamul boo yamee sax toog sa kër ñu sosal la ma samaak bu fekkee fu nekk nga cuuf fa coppet fu nekk nga dugg mais nag kaay mox la seetlu benn affaire de. sosal beeg waxal jiñ lay waxal rek mais boo xoolee surtout internet bi. Mhm. même personne yi la rek kese même doo fi gis ay nit yu bees wala doo fi gis ay nit yu ñi nga mm-hmm. xam ne ñoo ci nekk ñoom ñoo ci nekk rek ñoom la ñuy waxal mm-hmm. ñoom la seen sëy di tas ñu xam ko ñoom ñoo fi ngorow ak diw ñu xam ko mm-hmm. ñoom ñoo fi génn dem feneen ñu xam ko mais ñi toog mooy li may wax démb rek fi ndox daan taa ba léegi boo fa demee fekk fekk fay tepp tepp ñii baax ñi ngi baax ba tey baax nag ci deret la ci judd la ci jikko la voilà xaalis du la fëkk dara du la fëkk ci àdduna am am du la fëkk dara du la fëkk nit ki da nga ko tamit xalaat yàlla xalaat yàlla très important yaa see daa wax na ko léegi man à chaque fois dama koy dama ne lépp looy def ci àdduna ak lu munti doon mhm. jiitalal yàlla mhm. soo jiit noonu lépp day rafet mhm. mais bu fekkee da nga jiital bii wala nga jiital coofe rofe de xam comme ni ko xale yi di waxee <laughs> chic choc chèque waaw ki lay doxaan ki ngay doxaan ak ki nga bëggal sa bopp ak ki lay joxaan ki lay mbaraan ak ki lay ruuc ci suuf olof Njaay def ki nga bëggal sa bopp la waaye kilo la bëgg lay defal. Mm-hmm. sëñ Ousmane waaye ki nga bëggal sa bopp tànnal ko sa bopp <laughs> indil ko sa bopp. mooy ki lay dóor ngay kontaan mais ki nga xamante ni daf la bëgg góor ba la bëggee